<laughs> alors euh, beneen facteur bi nga ne euh, bi contribuer au report wala qui peut aider à comprendre euh, ce qui s'est passé mooy le facteur Amadou Ba. le problème Amadou Ba. le problème Amadou Ba Amadou Ba c'est un problème. dama ko bind ci livre bi Macky Sall face à l'histoire chapitre 19 maa ngi wax ci cours bi nii maa ngi bind ci chapitre 19 le problème Amadou Ba mais bu ñu gisee li xew ba ci report bi da gis ni. Amadou Ba tey la gën a nekk problème ci camp présidentiel que que démb parce que mënoo analyser report bi nga génn ci ñi nga xam ne ni ay adversaire Amadou Ba lañ soxore nañ ko ko yéenewuñ ko candidature bi dëkk ci nopp Macky sàll bi guddeeg bëccëg Amadou Ba lii Amadou Ba lee bu gañee nii bu demee ni loolu kenn mënu koo génne ci report waaw maanaam noonu noonu Amadou Ba yi nga xam ne ñoo nekk ci Macky Sall wër ko di ko wax guddeeg bëccëg seeni wax ak seeni jëf ak seeni pexe kenn mënu koo génne ci rapport bi waaw. liñ ciy man nag damaa jàppoon ni xëy na pexe yooyu du am si fii ndax pexe yooyu moom mosta ñàkk pexe diggante Macky Sall ak Amadou Ba moom dafa mos a am. mais jàppoon naa ni bi ñu demee ba amadu Ba nekk candidat ba co conseil constitutionnel génne liste candidat yi ba campagne électorale rek des ci vraiment weese weesu woon nañ weesu woon nañ loolu quoi.